بسم الله يكفيني أقدر يا الله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 billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi rabbil alamin usalli wa usallim ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiaa bi ihsaan ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yéen mbokk yi nga xam ne yéen ñu topp ci site bi Rafah TV yi suñu émission bi ñu tuddee xam say farata mu nekk diggante laaj ak tontu ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fi laaj nee du asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñëwaat ak yéen ci tey ji suñu émission bi fa seenee laayante biir nuñ ko baaxoo defee ci tontu laaj yi nga xam ne mbokk yi yónnee nañ ko fi tey tamit ñu jukki ci laaj yooyu yenn laaj yoo xam ne mën nañ bëgg a tontu ci kàttanu yàlla suñu borom subhaanahu wa laaj bi ci njëkk mooy mbokk mi dafa laaj ne koo xam ne da doon sangu càngayal janaaba daal di fàtte ab farata ginnaaw mu dal ci julliwaale loolu atteem bu fekkente ne nit ki da doon sangu càngayal janaaba daal di fàtte ab farata kon su boobaa fekkente ne benn bi nga ko fàttalikoo jege na day dem daal di koy def àggale la ca des su ma noppee daal di baamaat baamaat julli ga bu fekkee nag dafa yàgg lool su waa kon bi ñëw tamit rek daal di yéene daal di maanaam defar loola ndax dañoo wuute ci liñ tuddee almuwaalaat muy toftale dafa nekk farata wala sunna waaye bu fekkee fekkee ci maali moom dañoo dañoo ne moom dafa nekk waajib moo tax kon ko xam ne da ngaa fàtte moo xam ci sangu laak njàpp ci doon su fàttalikoo bu jëlee boo ñëwee kon koy daal def daal di li ki des kon daal koo xam ne dafa sang woon daal ba noppi fàtte ab farata kon day ñëw def ko ba noppi daal di yàggale kii bi mu noppi tamit daal di baamuwaat da nga xam te ne bu julli woon mu daal di baamuwaat julli ga ba tey mbokk mi da laajte ne koo xam ne euh, moom dafa yor njàpp dafa laab ndax sañ naa taqoo koo xam ne yuru njàpp misaal tey koo xam ne dafa amee janaaba ndax moom sañ naa riisoog moom wàññiwul dara wàññiwul dara ndax loolu bokku ci asbaab yi tax maanaam nit ki njàppam toj kon daal nit ki bu fekkente ne dafa laab mu dend ak ku laab wala mu den mu laal ko loo xam ne laabut loolu yàqu ak moom laab moom li ko toj moom mooy benn moom mu def ahdaas wala maanaam asbaab te loolu bokku ci asbaab yi mhm. ba tey mbokk mi day laajte ne ndax dagat lakk maanaam ñu ko faatu am néew ndax ñeneen gis na ne am na ci dëkk yoo xam ne fi ne nii dañuy lakk néew yi bu dee nit ko faatu moom bu dee jullit la moom kenn sëñ sañ fa ko lakk moom dañ ko war a sowul doon sa xàttaa sax ba ci jamono ji ñu mu xewe li nga xam ne mooy feebar bi comme dal tamit buñ koy sang tamit faw dañ koy sang moo xam benn dañ koy sang tamit ñu jël ay lu ñu teg ci kawam sang ko ci kawam comme ni ñu ko xamee ci téere fiq yi waaye amaa nag moom bu dee julli la moom kenn du ko lakk waaye tamit maanaam faw ñu sang ko jël ay jumtukaay loolu tamit mën nañu ko bàyyi xel baax mbokk mi dalaat ci euh, koo xam ne dafa ñëw ci jumaa ji bëgg julli te jamono ji dégg na ne moom dañuy wax ne bu ñu julli jumaa dañuy wàññi lim bi lu mel ni fukk ak ñaar ak yu mel noonu moom mu ñëw ba ci biir jumaa ba ci foofu nag duggut moom nan lay def bu dee ci foofu nag moom daanaka faaw ñu fàttaliwaat mbokk yi ci ne fukk ñaar yi ñu wax yooyu tënku ci yooyu de waxoon naa fukk ak mooy tax maanaam julli gi julli jumaa daal di wér kon nag nekku ni rek lim bi na ñëw fukk ak ñaar kon ñu ko yeneen jumaa yi jafe ñu koy ñu xam ne dañ ñoom dinañ dugg sax waaye ñëpp duñ bari noonu waaye teewul ne dañ ko organiser ba mu baax noonu tamit wàññu ki dara waaye nag bu tënkute ci ne fukki ñaari kese doy na bu dikkee nañ ca jumaa ji kon daal su waa kon léegi day mel ni kon dañuy bëgg a jël maanaam julli jumaa dox ko maanaam atte maanaam fardu kifaaye ndax bu nee rek na lim bii kese julli ñee toog kon su boobaa kon léegi maanaam dañ ko bëgg jël dox ko atte maanaam fardu kifaaye kon daal buñ nee la fukk ñaari mooy mooy lan mooy ngir ngir maanaam wér bu mu gën bu mu new maanaam fukk ak ñaar suñu jotaay bi jàll doon nañu ko ci xadis bi ci an ba ci an ba ci ñëw ci jaabir nu mu ko nettalee ci yonent bu dee ci ci ci maanaam ci masal boobu moom bu nga xam ne moom lañ jël tey ci jamono ji bu fekkee am na jumaa ju ko gën a jege jumaa dem man faa julli na fa dem bu fekkee am ko na léegi na toog julli tisbaar te xam ne maanaam am na ngànt waaye daal loolu nekku ci ab takk-takk <laughs> ba tey mbokk mi da lay laajte ne ku imaam ci julli imaam raw ko naka la koy fayee bu dee imaam dalaa raw ci julli benn mu raw la benn rakkan wala ñaar wala wala ñetti rakkan su la ñëwee rawee benn rakkan ci julli tisbaar yu mel noonu moom bu sëlmalee booy jóg yow doo wax allahu akbar doo kabar da jóg rek dal di jàng fatiha ak saar daa taay daal di sëlmal bu fekkee dalaa rawee ñaar rakkan bu sëlmalee booy jóg da ngay wax allahu akbar indi si ñaar rakkan daal koy mottali ba tey bu dalawee tamit ñetti raaka tamit maanaam bu sëmale ba jóge tamit doo maan doo doo wax maanaam allahu akbar kon daal ci tënk daal mooy ne fi ngay kàbbare mooy boo ko bu fekkente ne am nga ci moom ñaara raaka kon foo ma jum boo jum boo jóg da ngay wax allahu akbar waaye nag ko may moom sooy jóg doo wax doo wax maanaam allahu akbar <laughs> ba tey mbokk mi dalaa ci ne tey koo xam ne yàlla dafa dogal mu faatu ci am mbas te nekku ci réewam ñu denc ko fa ndax kooku maanaam mën nañ ko jullee bu dee ci masal boobu moom Euh, mas na fee am kon képp koo xam ne kon daa faatu woon te misaal tey ci euh, feebar bi am ci bisim réew ñu denc ko foofa ay mbokkam nekk ci meneen réew moo xam Sénégal wala fu mu wala fu mu a doon mën nañ koo jullee ndax li tuddee zaatul xaayib sax na ci sunna ndax ndax yonte ah, bi mas na ko def moo taxoon képp koo xam ne daa mbokk moo xam dafa faatu ci maanaam lu mel nii wala mu faatu ci yeneen yi nga xam ne xëy na néew mun ta ñëw maanaam ci dëkkam ñoom sañ ko defal li ci tuddee maanaam zaadul xaayib loolu daggan na wàññiwul dara te sunna tamit maanaam saxal na ko ba tey mbokk mi day laajte ne moom dañ koo may soxna ci jamono yi jàll mu joxe nag can koo xam ne nii mooy can gi ñu xamoon mu ñetti junni ak ñaar téeméer ginaaw ba nag mu dégg ñu ne kat léegi can gi wax wax nañ ne yokk nañ ko ba ci juróomi junni ak ñaar téeméer kon ko xamee ci ni ko sëriñ mu Muntaxa euh, santaane woon yàlla ko suñu borom gën a guddal afanam gën a yokk wéram ngay dox kon sëy boobu ndax maanaam loolu mën naa baax wala déet can gën ko may woon tamit baax na wàññiwul dara ndax comme ko woon eh, tamit maanaam tamit xamu ko woon ñu may ko tamit maanaam loolu téewul ni tamit sëy ba mën naa wéy yàqu ci dara kon daal bu fekkente ne moom mi nga xam ne mooy ci takk soxna moo xam can gi la wala can la baax na maanaam yàqu ci dara ndax can gi mooy li nga xam ne moom lañ njëkkoon a moom lañ njëkkoon a xam gën a siiw bii nag nekk ko xam dañ ko indiwaat donte bu ko xamul nag moom bu ko bu ko ci may son tamit man tamit loolu tamit sëy ba tamit maanaam baax na yàq ki dara suñ ko joxe sonaam tamit mën naa seq moom la muy seq moom kon mbokk yi li may laaj yi nga xam ne moom lañ ci mbokk yi andi woon di ko xam naa rek dañuy profité tamit di ñaan yàlla suñu borom subhanahu ba mbas mi nga xam ne moom la fi indi ci àddina bépp suñu borom teggil ñu ko ci ñu gën a gaawee bañ delluwaat ci suñu yitte wa nasalullah an yaj'alana min lasina yastamuna xawla fa yattabi'una ahsanahu wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بسم الله يكفيني أقدار يا الله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 sëriñ Basiiru jàkkaarloog jumaa ji lépp lu ngeen itteewoo si wàllub kaam yi xasaa ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillaahi fii nii ak daara yàlla